hali bili bili nansi si ku ñu may la ko nga le le le le le sunu yae jigini sunu jabaa le pine pine la la mu bëggoon ñu waxtaan quoi sama diggante ak Katia parce que xam nga benn instant ñu ngi yàgg ñu ngi bëgg a yàgg man a moom te ay mag lañu quoi xam nga sama mbëggeel ci moom aussi tax na mënatuma bëgg yeewoo ci benn kër boo xamante ni booy bi yeewoo foofu moo tax ma bëggoon ko jël soxna loolu moo taxoon ñu wala tey ñu waxtaan quoi. mais copain lay wax nii mais attends ak yow yow Mia li fi dund.

non ngay tourné di wax ay beneen relation fexeel xam fu sa doom nekk. Serif Mia bi muy dem moyen bi mu am moog yaayam ba dem su ma ko amoon dinaa ko topp li jënti sama doom sama bëggeel ci moom dépassé woon na loolu mais comme moom dem na li jëntiwu ma man xaw ma ci lu mu nekk maa ngi ànd ak keneen bëgg ko fas yéene koo takk nga may wax waxu Mia non déglu ma soo ma waxee sama waxu doom je suis d'accord mais sama doom fa mu nekk aw ma dem fekk affaire bi du wax milliard sa doom nga war a lijjanti ci lu mu nekk mën nga am façon jigéen bu nekk mais nit da ngay nit da ngay lijjanti sa doom ci fu mu nekk ak ci lu mu nekk te yow amoo seetlu naa benn affaire amoo habitude di waxtaan ci sa doom musoo ma cee wax musoo te nit farata jamono ji mais benn affaire dafa am lépp loo may mënti wax man wax ma sa waxi doom fu mu nekk ñu wax ci leneen parce que nit boo ñu ànd loolu même su ma doon bëggaan ni ma la jox mënu ma ko jox keneen dañ la ne la baal ma gisal sama njëkkër gi sama keneen dañ la ne la baal ma nga ne moo nekk مقله bébé waaw papa lan nga rek ni dama lay defal surprise bu ndaw indi la ñu au calme ndax man tok di jàkkaarloo yow di wax loolu man daf may neex waaw neex na kontaan naa trop ci yow non man ci la la suba ba ngoon. même doon bëggaan ni ma la jox mënuma ko jox keneen. nga fu ma lay yow maa ngi biir digal digg Ndakaaru Njaay te yow xam nga man xam naa maa ngi yow Dakar fii Xool bi kii ci nek xam nga ni yow la dama soxla nga baal ma li ñuy bari bari yow rek la ci xol yi te yaa sama xol dem nga bay boy Zé bu dee sa xarit la dama bëgg nga woo ko wax ak mom parce que depuis ma ñew Sénégal ba légui mënuma am jàmm ko gis sama jabar toog ak moom waxtaan ak moom sax problème la ci man mais lan la lu xew bu dee sa xarit la nag woo ko waxtaan ak moom parce que maa ngi bëgg a sonn ci li muy def. laa ko def laa bëgg a xam. war a comprendre ni nag Zey booy jigéen la quoi. te néegu sëy nga wax ko des fois fag am nu muy demee mais li ma la ciy wax mooy nga demee ci ak xel quoi bañ koo regle ak xol xolal dangay ngay jéem a toog ak moom waxtaan ak moom. booy xam nga bu baax fi ma toll ci moom tey su ma génnee sama kër wuti appartement bëgg lu ko neex moo tax. mais kon suma ko defé lu ko nakari na ma woo ni ma li ak li la ma xam mais sa suma ko wowe di waxtan ak mom du dara du dara du dara mais ba kagn dama sonu ci lolu dama sonu budé sa xarit la nak wo ko nga waxtan ak mom parce que ma ngi bëgg sonu ci limi def. graw dina ko géré dina waxtan ak mom xalé bi la balma bu ne ki ne ma. xoolal bul jaaxle booy bu mu la def problème peut-être moom it am na lu mu gis ci yow loo xamante ne ni neexu ko te mënu la koo wax mais peut-être bu ñu toogee ak moom dina ma ko wax quoi lii moom du problème quoi Zeyna booy yow rek la bëgg ci àddinaam loolu lu ma leer la bu ko jéem a sax def problème man dinaa jaar kër ga dinaa waxtaan ak moom incha allah.

may ma ma dugg ci toilette yi léegi ñëw même ah. su ma doon bëggaan ni ma la jox mënu ma ko jox keneen dañu ne la baal ma yéesal sama njëkkër gi sama génneen tooñ la ne la baal ma nga ne moo du nekk instant mbëggeel la xool bi kii ci nekk xam nga ni yow la dama soxla nga baal ma li ñuy bëri yow rek laa ci xool yi yaa sama xool bay ngobai mama mata di joyi lo yama kamala mim sumudun pagat ni malaja mo ko jokenena tonya nela balma Alo, Zé, Zé, déglu ma déglu ma déglu ma Zé bàyyi sa problème yi ngay def xoolal bëgg laa toogaloon léegi léegi mu may wax seen problème yi ñaar nee na ma léegi da nga changé complètement mais Zeynab loolu boo ko defee day comprendre sama diggante ak yow mais non non non non toppatoo sa jëkkër booy toppatoo sa jëkkër bu mu sib action li ngay def nii du yoon loolu laa bëgg nga def su ñëwee xoolal nekkal ci wetam toppatoo ko foog moom xaqtaay ak moom defal lu la neex booy ndax ma mën a nekk à l'aise instant sama bopp maa tëju non booy bu ko mayee sax fu mu yëgee luy xaw sama diggante ak yow bu ko yëgee mooy sama àdduna yàqu na jàpp ci ok ok ok ok waaw waaw c'est baax ni ma la jox ma ko joxe neen tooñ la ne la baal ma yeesal sama njëgal gisuma keneen xale bi ne baal ma gone gi ne ne de jot na de parce que duñu dem gaay heure bi kontaan naa sama na trop si yow léegi yow loo bëgg la ko man lenn rek bëgg ci yow nga fidèle di sàmm sa lo wax def ko bëss dina ñëw man ma tere la say diggu mbokk. looy nga bëgg. lolu rek la bëgg def kon di bo nañ. mais bu ko def problème boy xapil xapil fii lo du belem bu ñu toogee tay mooy loolu dafay jeex.